mbokk yi ñëw nañu tey niñ ko daan defee at bu ne ginnaaw buñu ñu sant yàlla julli ci sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw naa ànd ak soxna Mareem fii ci Fatick fii ci Fatick nañ ko daan defee ci centre Thierno Mamadou Sall bi nga xam ne fii la ñuy woote may sant nag waa Fatick balaa may gën a sore ndax nag Fatick euh, Fatick fii la lépp tàmbalee te fii la lépp di mujjee kon ñëw nañu niñ ko daan defee woote Sénégal nag yàgg na di woote te ren jii donte campagne bi gàtt na gis nañ ne yàlla def na sutura ba lépp jaar na ci yoon tey ji woote jot na donc sénégalais yëpp jóg nañu depuis ce matin pour woote nañ ko daan defee ndax Sénégal réewu démocratie la bu ñu wootee ba pare nag li ciy topp xam nañ ko mooy bu 18 heures jotee ñu génnee résultat yi

boo leen di xool observateur yi ni ñu bare daanaka ñoo ëpp bureau de vote yi donc jóge nag fu nekk ci àdduna bi jóge ci biir Sénégal jóge ci CEDEAO kon loolu yëpp day wane processus électoral bu transparent nañu ñaan yàlla rek mu defal ñu li gën ah sénégalais yi tànn ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moom la ñu wóolu pour mu jiite réew mi ci juróomi at yi di ñëw kon nag encore une fois jëre ngeen jëf yéen waa Fatick jëf waa Sénégal jërëjëf waa Sénégal ah ci résultat yi ak ci élection bi macha allah